Matar Numbe Samba Ayib Diop Serigne Kokki sa leer gee baawaan ñokk ba Makka Ablaye soxna ñaan Modun soxna ñaan Aminta soxna ñaan sëtu Lat Joor sëtu Serigne Touba sëtu Matar Numbe yow yi wax nga leen di teral moom laa lay wax nga may dóor ak di ma xas ak di ma saaga li yi di la wax nga leen di teral je répète moom laa lay wax nga may dóor won ma mo xol won ma <laughs> kon téema la wayal mami lo indaale mami lo indaale ay ay ay eh mami lo indaale mais li ngay live ci TikTok bi jarna 14 milliards mo baye di ma topp ak di ma weer mbaa yëg ni may président fans club bi Matar ni sa yi Diop Serigne kok mi naturel bi nga daxé ci télé bi man na ci joxé 10000 no non ko yok tay 10000 dix téyewuma de ma jox la fan trente <laughs>